ndeysaan Pape Ngane Sosokh Mamou Zidane cey bii demi-finale mu ngi métti George Poite Ama Fa Lamine Petit Sélé George Poite en finale ay cugaat diggante Sosokh Mamou Zidane ay ca George Poite en finale Ama Fa Lamine Petit Sélé a cuga diggante Sosokh Mame Bou Zidane ay ca demi-finale Papo Ngane Sosokh Mame Bou Zidane Sosokh waaw waaw Mame Bou Zidane lu xew waay lii bii bii combat Sokh daw na moom mosu dara ngay fecc arbitre bi li muy wax <laughs> luy xew arbitre bi arbitre baa ngay woote Sokh moo daan Sossokh daan na Mamou Zidane nanguwul Mamou Zidane nanguwul de Sossokh daan